li gën a waral nag euh, sunu jataay bi mooy mbirum euh, le ministre Mahmoud Saleh parce que gis nañ fan yi yëpp ñu koy attaqué ci ay affaire nomination boo xam ne président nommé na ko te loolu ñi ci ëpp di waa APR ñu bëggoon wax ni euh, fi ñu toll nii ubbiku ci waxtaan ak jaloo ak yaatal fi lañ toll surtout waa APR yi dañoo war a def exemple comme li président de la république def ci ubbiku ak yaatal defe naa ni président Macky Sall kenn gënu koo xam li yoon wax ci nomination yi ak post sàngam kan moo ak yan diplôme la waram kenn mënu ko ci kenn guñ ci xam donc bu bu xamee président ministre Mahmoud Saleh ba xam responsabilité bi tey post yooyu day post yu sensible yoo xam ni ñi ko mën a doon mooy ñi nga xam ne sur le plan politique dinañ xam et puis sur le plan administratif dinañ ci am kii tey itam euh, xam xam parti bi xam waa parti bi xam ñi président naan àndal démb ak bërki dem ak fi président dem parce que néew na euh, diggante 2009 ba tey foo xam ne fii président dem na fa ci Sénégal ak bitim te Mahmoud Saleh bokk ci ñi nga xam ne ñii ànd nañ ca nga xam ne tey bu lettre ñëwee présidence euh, jëm ci président di demander dara wala di fàttali dara Mahmoud mën na jël yenn décisions yi parce que xam na ni àndoon naag président sàngam te loolu la président di doyee poste bu mel noonu muy muy président muy muy muy Mahmoud Saleh kon muy doon loo xam ni ñun dañoo bëggoon responsable parti bi jël euh, président <coughs> Macky Sall comme exemple par rapport ak ci yenn ci yenn réaction ak yenn démarches yi. parce que boo xoolee euh, li nga xam ne moo fi am tout récemment ay ministres yoo xam ne tey Macky Sall moo leen jëkk a def ministre de la République tey sénégalais yi dem nañ ba jàpp ne ñooñu waruñu leen woon a génne ci parce que xam nañu utilité buñ ci amoon donc ki nga xam ne kii saa yu jëlee kenn liggéey loo ko benn liggéey bu ñu demee ba ci kanam nit ñi dañ jàpp ne waru ko foon a génne parce que da ko man man jàpp naa ne loolu bu ñu ko xoolee dinañ war a xam ni war nañ am confiance ci moom bàyyi ko xel ak yu mel li ci la li ci wàllu yoon nag loolu duñ ci dugg luñ ci sori mais euh, sur le plan politique daal war nañu xam ni Mamour Salé lépp loo xam ne parti bi jox na ko ko ci ay responsabilité war na ko yeyoo na ko te itam ñu ngi ñaan tam soxna Marème Faye Sall ak ñi nga xam ne ñooy bonne volonté parti bi ñu bañ koo yemale ci ñaar ñooñu bëgg nañ ñu gën koo lawal ci ku mel ni Aminata Touré ba lawal ko ci Moustapha Diakhaté lawal ko ci responsable yi nga xam ne ñoo ne APR yëpp ñun suñu parti structuré na ci jeunesse bi am nañ mouvement des jeunes am mouvement des femmes am mu maat troisième âge am lépp lépp loo xam ne secrétaire national war na ko am ci doxinu parti am nañ ko donc yaakaar naa ne di wax affaire du parti comme ni ko président waxee woon ci en l'année dernière yaakaar naa loolu saaga parti bi la wala euh, sabotage waaye jàpp naa ni parti bu doxee nii di am structure yi instance yu nekk ñu am fa ñu respecté leen ba ñu def jaloor yi ñu def liggéey président liggéey liggéey bi mu liggéey ci lu matul euh, euh, ñaari mandat def ci résultat yi yaakaar naa bu dul parti ñoom ñoo war a seen bopp pour xool ba xam nan la ñuy def ba bay dox dox in wii waaye du caagee ne doon parti rek moo mën a doon moo mën indi ay résultats ci yenn yi. ku mën a dellu siwaat uh, say say adversaire politique nga dem bañ toogaat di waxtaan bokk la ñi nga xam ne bi ngeen defar seen programme yokkute ak programme bi ngeen di gouvernement en 2012 2000 2011 2012 loolu defe naa jàpp naa du du la jafe te mi mii jigéenu président Macky Sall la ñu yàgg la ñu jàpp naa ne loolu moment venu yaakaar naa ñi ci war dox nañ ci dox ñun daal li ñu bëggoon mooy ñi nga xam ni ñoo nekk ci wetam ñoom ñëpp nañu nañu fexe ba euh, promouvoir booloo ak ànd ak doon benn ak jaxasoo loolu daal mooy li gën am solo mais jàpp naa ne yoon loolu nga wax bu ñu demee ba ci kanam bu fekkee ñëpp taxaw nañ ci loolu defe naa dina dina dina mën a jur li ngay wax nii te problème boobu dootuñu ko am. dañ ko bi may dugg damaa wax ni cadre de concertation bu tudd yaatal APR liggéey Touba te sunu nawle yi ma lim bokk ci ak ñeneen ñoo xam ne teewuñ ci ñun ñoo ñun ñoo bëgg liggéeyal président de la République ci biir Touba ak li nga xam ne moo ko wër defe naa ni ñun ñii madame Ndiaye mi ak ñi fi nekk nii astu ñoom ñi fi mënuma lim ñi fi nekk ñëpp sëñ Abo Niang euh, Ibra Sall euh, Madické Niang sëñ Moussa Bousso ak sunu jeunesse bi ak kilifa yi ne ci sa ginnaaw noonu jàpp naa ni ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ne sunu ginnaaw mën nañu représenter li ñuy def parce que assimé nañ ko par rapport ak euh, fi parti bi nekk. dëkk bi Daaru naan gi nga xam ne gi fi laa jógee mu ëpp commune Fatick Daaru Mannaan village su Daaru Mannaan Daar Touba Daaru Tanzil Daaru Xuddoos dégg nga maam Kër Niang village yooyu village bu ne moo ëpp Médina moo ëpp Xombal donc mënuñu mënuñu noo gëmloo ne noonu nañ defee foofu ay commune d'arrondissement ak yëpp def ko Sicap waa képp fenn fa ay maire rek yëpp Gueule Tapée Fann dégg ak i point ñu dajale nu rek ne nu yéen ñëpp da ngeen di ànd mënul nekk mënu ñu daj fépp. il nous faut ñu lancer par def un découpage politique responsable ñenn ñu ne ñi ngi mën a àndal ngeen ànd déggoo mais di liggéeyal parti bi di ko yaatal ma defe naan lii wàññiwul dara. mais dëkk bi nag moom ginnaaw euh, acte trois de la décentralisation bi ñëw da ko jëlee ci commune yóbbu ko ci euh, da ko jëlee ci yóbbu ko ci commune yeneen village yi ñu waroon koo def ay euh, commune d' arrondissement yàlla dogal na loolu àggu ja ñun politiciens yi nag war nañu man def ay ay ay ay ay ay cadre de concertation yu mel nii du ab mouvement du dara lu cadre de concertation boo xam ne dañ ciy jublu pour que di liggéeyal président di seetante suñu buri nemmikonte di am suñuy doléance di ko wax te xam na ni ñun dañuy def pour loo xam dafay doole parti ak gën koo yaatal ak gën a indi jàmm ak yi nga xam ne gis nañ kenn ku ne ci coin yi mel ni ma dikkee ku mel ni Ibra ak ñu mel noonu kenn ku ne fa nga dëkk ñi nga xam ne ñoo fa nekkaloon président la nga xam ne moom la ñuy yëg boo ko yëgee nga jox ko madame Ndiaye ngi fi ak abo ak yéen kenn ku nekk su ko defee ñu yaatal ko président li muy bañ mooy xuloo ak xeex fukk yu daje di xuloo euh, maanaam téeméer bu tasaaroo kenn ku ne ci dara moo ko gën waaw parce que bi ma fi amee problème président Moussa Silo loolu la ma wax dama ne seenu asamaan amul buxante boo demee seetal ñi nga déggul ngeen créé te loolu moom romb nañ ko sax dama la koy wax nii rek c'était en 2011 2011 ak yu mel noonu donc boo demee seetal sa ñi nga déggoon ngeen créé seen mouvement incha allah dinaa leen jàpp bu leen xuloote loolu wax cest à président bañul nit ñoo xam ne ñii peut-être ñu nekk ci angle xanaa xamoon bu ñu demee ba ci kanam ñun dañoo initier fii zone yi foofu ay zone yi day kër ñanga yëpp fenn fu am fa ñu mel ni ay kilifa nga fa kër ñang boo fa dem ay kilifaa nga fa yoo xam ne bu ñu toogee taabal dañ ko fees dell def ay responsable APR bu dee Guédé aussi noonu barki dem fi lañ doon jaay kaamil madame Ndiaye mi membre fondatrice la ci parti bi ak su ñoom ak ñëpp fat jaxat donc ñun ñii fi ne kenn ku nekk fa mu nekk dañu fas yéene mu def fa benn cadre boo xam ne bii dana mën a représenter parti bi ci fépp baykat bi ñoom ñoo doon wax naan buñ ñu buñ ñu yokkale defal na juróom fukk ñu indi leen juróom fukk ñëw ne juróom benn fukk ñu daal di dem jaayi ñooña mais bi nga xam ne bii dem nañ ba ne la yéene woon na juróom fukk naa nga bëggoo ñoom dañoo wane ni ñu dañoo présenter 60 pour cent de la population léegi nag 60 pour cent de la population yi ñoo ëpp doole ñooñu waaye mm, néanmoins ñu ngi waxtaan ak ñoom pour que xool nan la ñu mën a def ba li fiy ñore euh, baykat bi mën ci jariñu parce que koo xam ne kii da nga doon xëy ci lay bi ak xaaxaam beeg yu mel na ak sa ak say soxna ak say yëf ne ci biir àll beeg naaj wi ba kii war nga ci am teraanga ju bari waaye nag état bi aussi euh, compagnie yi mu fi nga xam ne dañuy dañuy créer ay emploi ñoom itam ñu bañ a dee loolu aussi ay waxtaan en tant que membre conseil économique social environnemental ñun ñu ngi xalaat ci loolu nan lañ mën a def ba jël ay waxtaan ci baykat yi jël ay waxtaan ci industrie yi parce que foofu ñu nekk ci kër googu ñëpp a nga fa euh, lu mel ne ay béy di aaj ñi nga xam ñoo jiite patronat yi et tout euh, yaa nga fa foofu Sénégal la parce que bu dee baykat sàmmkat transporteur chauffeur syndicaliste ñëpp nga fa donc foofu li nga wax nii ñu ngi ko ñu fay waxtaan pour que xool ba xam nan lañ mën a jëlee kàddu ñi fexe ba defar noo xam ne nii ba euh, till sa sëlulu yooyu giiru demuk neen nga xam ne kenn ku ne di nga mën a gis sa bopp par rapport ak li ñu doon def waaye baykat yi ñoom ñu ngi revendiquer ne rëpp na naan nañ déjà rek 60 pour cent de la population ñoo aussi kenn mënatul leen a bàyyi